xam ngeen ni Sénégal li mu def di nga wër réew yu bare doo ko ci gis mooy que volonté politique bi ñu jël nangu ni dañuy jàppaleel askan wi ci wàllu natt gi teg programme jàppaleel ñi nga xam ni am néew nañ doole di leen nattal loolu jël mutuelle de santé yi ñu ne mutuel de santé yi boole nañ leen ci ñoom ñu bokk ci liy développer la couverture maladie universelle loolu la àdduna si gis ni nañu dem organiser conférence bi Dakar pour njukkal Sénégal rentre hommage au Sénégal reconnaître li mu def ci wàllu couverture maladie léegi li jëm ci suñu réew xam nañ ni lancé nañu couverture maladie universelle matul fukki at ci wàllu liggéey mën nañu ni ñeenti at la ñu liggéey loo xam ne parce que 2016 2015 2016 la ñu taxawal ay mutuelle ci yenn gox yi donc bu demee ba am résultat bi ñu am tey Sénégal am 53,4 de taux de couverture loolu lu jar félicité état bi félicité agence de la couverture jar a félicité ministère jar a félicité acteurs yi dont les mutuelles de santé parce que bu ñu yeggee foofu tey jii damay wax ni Sénégal bu Rwanda amul réew mu ko raw ci ci Afrique au sud du Sahara tey jii ci couverture maladie universelle loolu may na Sénégalais yi tey bunt bi ubbeeku na am na ñu bokk am na ñu waaye mbirub assurance da di loo xam ne il faut ñu cay ànd ak xel xam ne du lu ñuy xëy rek ne ñëpp dañ cay bokk mënul nekk parce que réew mi ñu nekk secteur informel daf fay bëri daa ngi secteur informel ak rural. maanaam da di économie bu ñu organiser wul te boo ko organiser wul li mën a am ci yenn réew yi nga xam ne am nañ coopérative am nañu yeneen euh, xeeti organisation amu fi donc il faut ñu ànd ak éducation maanaam di yéen nit ñi di leen xelal ba ñu ñoom ñu dugg ci mbirub assurance bi te bokk ci te loolu bu xasee taxaw yaakaar nañ ni fi ñu bëgg a yegg dinañ fa yegg ak jàmm te askan wi yëpp dina gis njëriñ li solidarité bi dina mën a gën a organiser wu. ñu gis ni nag euh, li mu wax ànd na ak maanaam xalaat bi Sénégal di am gannaaw bi ñu defee seen évaluation ñoom tamit ci li ñu tënk nee nañu dinañu gën a dooleel maanaam. Euh, agence couverture maladie universelle ci lu jëmee ni assurance maladie d'une façon générale assurance maladie publique Nous avons aussi de santé pour une euh, professionnalisation Nous faisons aussi des tâches du point de vue administratif de la gestion Nous faisons aussi euh, mutuelle à la base Nous avons ñaari discours Sénégal euh, opportunité parce que ay xalaat ay discussion yu ñu doon def fii su fekkente ni ñi gën a am xam-xam ci mutualité ci assurance maladie teew nañu wax ñu gis ni seen wax mu ngi méngoo euh, mun nañ jàpp ni ñu ngi ci yoon bu baax. am nañu yaakaar ni euh, ci at bi deux mille deux vingt deux balaa muy jeex danañ am benn vi beneen vision bu gën a dëgër bi nga xam ni su ci yàlla àndee ak euh, volonté président de la république dañ am yoon bi nga xam ni moo ñu yóbbu ci li ñuy wax couverture sanitaire universelle.